Sonko du Diomaye Ousmane du Bassirou nañu waxante dëgg. pour te dire ñi ëpp ci ñu ànd ak Ousmane Sonko tey Amadou Ba la ñuy voter parce que gëmuñu Bassirou te bëgguñu ko loolu mooy dëgg te am na ci ñoom ñoo xam ne au moins. bu dimanche wallahi billahi di ngeen dégg wala ngeen gis wala xolal. yi. man bëri naa ay jinne yoo xam ne ñoom ñooy wateel Amadou Ba ak i malaat surprise yu mag dina am bu dimanche. ñoom xam nañ ni ki ñuy wax Diomaye fay wax dëgg yàlla wax dëgg yàlla man de bu ma doon wut jardinier sax du ma ko woo. dañ leen wax ne xoolal réewande kenn gisul fu koy jaayee ku mu neex reew mbubb la ku ko sol mu jot la ku mu neex nga réew. ay juutal yooyu waaye Penda Badji dañ ko waxtaanee waaye Penda Badji juutal kenn du ko wax dañ koy jëf. juutal du ay affaire. réewande kenn gisul fu ñu koy jaayee ku mu neex réew. man du ma voté Bassirou Diomaye. la ngeen xool pour ay dépenses. sama réew du ma ko faje mer. di fen di fen di maa ngi amee 7 millions jinne ay malaaka maa ngi si amee 17 millions. sama numéro ku ma soxla 76 121 20 30. ku mu neex nga réew. pour que les gens comprennent on en a assez. wax ji et na wodduwul lu neex way wax. Djoutal du ay affaire da wax ay affaire da wax la ay affaire de jëf la. defet mo ñëw defet. Sonko <laughs> Basirou moy Joomaay Ousmane du Basiru Basiru moy Joomaay. xam nañu ne tey jël Sénégal nit ku mel ne Bassirou jomaay Faye fan la toj ak lu mu jàng ak lu mu xam. Sénégal ak fi mu ñu ne Sénégal ci at bii ñu jëm ñi nga war a exploiter suñu pétrole ak gaz war koo jariñoo ñun sénégalais. Ousmane mooy Sonko Sonko du Diomaye man maa ko wax. defet moo ñëw defet parce que. ci Thiès ànd ak ñoom Sidi ñi. am benn xale bu góor bu taxaw ci sama kanam di wax ak ma ne ma papa yow yaay sunu dernière chance. waaye ko wax. teguma ko woon fenn bu am fulla bu Bassirou Diomaye Faye taxaw sa kanam di la laaj réew mi nga war a jël dal ci kawam loolu mooy dëgg. seen leader fa mu jàngi fa mu jaar. waaw mooy si impôt domaine. fa la Bassirou Dia wala kan patron ndax tey jii nii soo nee Bassirou Diomaye Faye amul jaar-jaar waaw nga leader Amadou Ba mais am non dama ne léegi ma ma ma rek. ci question bu ci bëggoon toftal. ñu ne moom mi ko gagné dix milliards sa xarit la loolu dëgg laa bu dëgg. ak itam li may daaneel mooy. boo ko xatee boo ko plainte. non c'est vrai plainte. ah pourquoi. non parce que da ngay da ngay mu doon xet rek boobu pouvoir la waaye léegi yéenay pouvoir